nga te fi waay lu ci ñaar bu batay ci sen scandale du jour ki di mam ñay Savon mom nak entrepreneuse la ndax nak da fay créer emploi yor plusieurs places fi ci Sénégal di jaay li nga xamantene mom moy mbirum di wak sa bok sa ak posette ak yere manam elle est elle est maanaam businessman la au fait au final donc moom nag démb dafa am lu mu doon joy ginaaw lu mu dund fofu ci aéroport ñu deglu ci ko ñewar léegi dañuy obligé dem ñibi duma yobbu samay bagage parce que six 12 colis la dugal 12 colis xam nga ñaan lañ ma ci fayé ku 10 millions. dix koli dix koli dix million la ñu fayee ku ci en tant que jigéen buy liggéey mais lii dafa métti dafa métti lu ne la ñuy daj ci ci ci aéroport bi dama lay wax ku ñëw ñu bàyyi la nga jàll. ku ñëw ñu bàyyi la nga jàll mais man bu desee ci man man lan laa def man lan laa def sénégalais te man damay damay bégal sénégalais au fond te man du ma bég su ma jëndee sama bagage damay sonn ñaata. fan ma nekk ko ci àll bi sonn bàyyi sama njaboot ñëw ñu jël samay bagage téye ko di ma laaj dix millions ci douze colis douze colis ñu may laaj dix millions dama obligé gedd bagage yi bàyyi ko fi loxo mais vide laa ñibbee sama kër waaye am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur yi ma féret bu ñëwee du téye li ma ko doon jaayee laa koy jaayee lu am ma teg ko ci loxo yàlla te bañu ci dara bu leen neexee ngeen topp ma ba jusqu'au bout bàyyi naa leen ak yàlla waaye bu fekkee jomaay mi ngi may dégg wala ko maa ngi leen ñaan ñun jigéen ñi sonn nañ ci aéroport yi lu ne lu méttital bu ne lañ def mastamaa man mi nga xam damay xëy di liggéey bàyyi sama njaboot onze colis ñu ma ciy fayeeku dix millions damaa am dix millions yu ma fay ci onze moom moo fi waxoon lundi dañuy am président bu bees yéen a ngi fàttaliku challenge bi jamono yi jamono yi euh, campagne bi danaa lënd lekk ñu am président bu bees maam Ndiaye massa coono massa liggéey bi nii la des fois day métti des fois day neex des fois mu métti massa coono massa dégg nga massa massa ñu ngi lay massa je suis très sincère nag massa massa ñu ngi lay massa bu baax a baax ñu ngi lay massa bu wér a wér ndax na jigéen nga waaye jàmbaar nga jigéen bu mën góor nga nangoo liggéey di créer emploi barki rasulillahi kenn du yow yow. billaahi day yàgg rek waaye maam Euh, doo di nga di nga jéng waaye doo daanu de ndax ñi ngay dimbali ak ñi ngay créer emploi yow waruñu laa faagaagal dañ laa war a mën a taxaw ndax tey am na ay yu liggéey ci yow xëy na état bee leen waroon jox liggéey tey yow yaa ngi créer emploi lu mu métti métti pour sa place bu nekk am nga trois ba cinq emploi ñiy cag-cag ñii di ñuy jaay ñii di ñuy wuyu téléphone donc c'est très important ñuy jàppale jigéen ñi nañuy jàppale jigéen ñi nañu yërëm jigéen ñi nit mën nga koo contrôler mais ci respect manque de respect ba pare nag dañ ko war a soutenir Mame Ndiaye bëri na wax bëri na affaire mais Mame liggéey liggéeykat la te dafa créer emploi donc nañ ko jàppale nañ ko soutenir jigéen bu mën góor la jigéen bu nangoo liggéey la comme ni mu comme ñenn ci am na ñoo xamante ne tey xëy ñu gontuwuñu almadig almadig yi lañ toog suñu ay ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor alalu réew mi ñoo koy ñoo ñoom ñoo leen di pasar pasaree di leen financer di leen jox moom dafa jël tey dem ba nekk li mu nekk di liggéey di ñafe di créer emploi kon ngalla nañ ko jàppale buñ ko mënee jàppale bu ñu ko mënta jàppale aussi nañ ko bàyyi ci li mu nekk ñu bañ koo faagaagal ndax nag gis nga euh, ku ci nekk na ko xoolee boppam rek dafa metti dafa metti nga bàyyi njaboot dem àll ba dem liggéeyi wuti ñëw war a yóbbu sa kër muy demee nii dafa doy waar en fait.